ಬೆಗೆ ನಮ್ದು ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ tek no SRS lay doxe mom aduna bi yëpp no SRS lay doxe ñaari

ndeysaan moom moom moom de dafa ne tekk no stress lay doxee moom àddunaam yëpp no stress lay doxee wàcc na Zarko wàcc na wàcc na Zarko wàcc na